Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Djanga du xóot te dëggu notre force le traitement de l'info. di wax ne li waral enregistrement bi nii lenn ci ñuy askanu ci ne ay taaliba Cheikh Ibrahim lañ dañuy faral di dem ci télévision yi di fa oote ay mbir nan ñoom loolu lañ. ñii di wax ne dañoo am ay jinne ñii dina dañoo amee ay jaaru ñii dina dañoo amee kéemtaan ñii dañoo amee ay rawxaan te lu ñu wax dañuy tudd Cheikh Ibrahim bi loolu bëree ñi def délégation yëgal ko xalifa bi tegal ko seen film yooyu noonu xalifa bi joxe ndigal ne nañu bind ay leetar yóbbu ko ci barab yooyu ñuy faral di dem loolu commission bi nga xam ne créé nañ ko ci ndigali xalifa bi dem nañ def liggéey boobu noonu lettre yooyu noonu tasaare nañ ko ci barab yi ñu ko war a tasaar yépp ma bugg a wax xale yooyu ne leen askanu Cheikh Ibrahim xéewal la waaye tamit képp ku ko yàlla may war nga koo sàmm ba bañ koo yàq yàq gi mooy nga bugg di commerce wala nga bugg a jaay sa produit mu nekk ne ci turu Cheikh Ibrahim nga bëgg mbubboo pour jaay ko te moom loolu tax ko woon a moom li ko taxoon a jóg mooy tàggat nit ñi yóbbu leen ci seen borom wal ummatu qasdi fihimu an asuqahum ila bari birri rahimi na li ma namm ci umma bi mooy tàggat leen ba ne leen yéen a ngi nii seen borom a ngi nii mësta oote ne dafa am ay taalibe jinne te am na ko ci lu wér mësta oote ne dafa am ay karaama te am na ko ci lu wér mësta oote ne su ne mbir amal mu am te mën na ko ndax moo ko wax te mësut koo def ndax moom moo wax ne xat xassanii bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi yàlla may na ma jagleel ma ci xam-xam ak ci soppandiku ci mbir yi ba lu ma ne amal rek loolu am ci lu dul benn déng-déng waaye mu ne laakin ni taxatuhu wakiilan te ëdduban faxtaara ni xalilaa waaye nag jël naa amal na am bi weccee ko ak wakiilu ci yàlla ba lépp lu ma bugg rek ak lépp lu mën di xew damay wakiilu ci yàlla ba yàlla far jël ma def ma may soppeem kon bu dee ne dañuy askanu ci moom war nañoo moytu oote yi nga xam ne dañ koy ootee donte dëgg la sax dañ ko war a moytu waxuma naa ak bi nga xamee ne du dëgg te yéen ñi may waxat yéen ñiy def jëf ji kenn ku nekk ci yéen xam na ne li muy wax ne loolu la ay fen la waaye du dëgg Uras Info xibaar gao. gaaw Puras Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu te degu notre force le traitement de l'info